immobilier bu ko defee 77 417 77 40 ou wala 33 835 08 67 Action social shopping immobilier jaay kër neex والبار والأمدار يا يكفينا يا الله لوط الخطوة يجاري سيرتكم من سجد سيرتوبا يوم نجنب نيسون باي سunu yaay di sunu waay di sunu bitig ñun di la jaay sax nu wal nu ngeen di yërmande ku sopp Baay Cheikh Mamadou Fadal Mbacke Serigne Fallou Serigne Touba yow sama mbokk maa ngi digal bu wér ngay jàng alxuraan te ne moo war xasiida yi dee ko saxal Kan Lo mana def bu dee danga ko gis bu ëllëgee moo tax jarul ngay bëgg a fas loo def bu dee lu bon danga ko rus bu ëllëgee yàlla boroom moo gën a des ki lay teral bind la may la ngay nalaw munoo di jëf lu fa moom kon bu selaw ta xoo di moytu ta doon kuy farlu te bañ a yu tey xamal nga kuy ta xoo di moytu tooñ ta doon kuy farlu tey bañ a fayu tey xamal nga kuy xamlu karam ak Sëriñ Tuuba gi gaañi mu tere nelaw bañi gaaruwaale yi kaddu ñoo tax ma jug di wax bu daam ka bare cim ndox ku koy tëkkale ki jën kañaan na sam xol te sam xel ba lu yàlla gën a bay seere kuy weddi ak amam danga yàqu yàqoo tax ba ngay weddi may gu sax ku baayam demul maamam demul bamba dem ba ñëw bu muy gaaral ku gaaral mbiram torox ba muy tabi géej samaam yaa ngi riigu bu deesee ndaalel mayu day nii danañ ko wax bay coto daa songoog ña daa daanu ak ña daw ba tey seen géwél yaa ngi di way ci bépp gox karaam ak sëriñ Tuuba dafay wii ta dootu fay ña daa jéema fay ñoom ñëpp dem nañ ci seeni pax kalaam ak Serigne Touba dafay wiita dootu fay ña daa jéem a fay ñoom ñëpp dem nañ ci seeni ko aw ñañam bañu si muy wax waxul di gaaral jaloorey Bàmba ne ko yaay purux ku bañ ay goneem xaaraani waa ji nara si amoo njël ta bañ say doom xaaraani mën na sax ku kaba ci ndox kaba kaw jéeri doora dem ku kay saakalum kem juum na ko doora wax ndaxam ibra faateek ibra faalu nekk fuñ taxaw ku leen yéerndu woon booy daw fa ngay bàyyi say carax Bakki Balla ñu ngi lay la siyaare bu baax a baax eh, lii daara joo xam ne eh, hmm? waaw wal bëtiku nii ne eh, daara ji daara la joo xam ne daa nekk ca sowu ñu tudde ko daara yi sëriñ Saalix mu nekk ñaari daara ci biir sax am na ak teqale goo xam ne def nañ ko ci ñaari daara yooyee ci Parcelles Assainies unité 3 euh, benn bi nooru daara ni la bi ci des yaakaar naa ne euh, mooy mi minanu minal wala minan <laughs> xam naa nag doon na ci xëcc ak na <laughs> euh, muy daara yoo xam ne itam soxna yi nga xam ne dañoo ber seen daara soxna yi itam yor leen yàlla def na itam ñafay jàngale ñu ngi bàyyi ko ci daara maam Jaara Buso faran mokkale muy soxna yi gis nga toog ñëpp am na ci ñoo xam ne sax eh, lenn xëy na ci sag njaboot du ñàkk bokkoon nañ nekk foofee muy soxna jaar yi ndeysaan ayo soxna awa dem <laughs> kon eh, ñu gaar la lolo eh, sëñ Modou Badar nag daara ji it xam ne mooy ñuy jàng alxuraan ni ñuy jàng ci daar yi rek lañuy jàng dañuy boole jàng alxuraan jàng xasida jàng itam wala fa soññe yi yi nga xam ne day gën a kennal Serigne Touba Seexul Xadim ngir jublu ci ñu gën cee soññ ko xam kan mooy Serigne Touba loolu daal mooy liggéey bi la ci gën a neex nag mooy euh, seen mébét mii bi ñu ñëw tey dañoo mébét ngir dem ci Seex Ahmadul Muntaxa dem nañu ca mébét dem ci sëñ Alaaji Mbàkke mu sëñ Moustapha Absa dem nañ ca dem nañ tam ci barabu Serigne Saalix dem nañ ci barabu Serigne Touba Seexul Xadim waaye dem nañ itam ci Serigne Jili mu sëñ Saalihu Mbàkke ne woon nag fii ñu mujj ci yow ndax da bokk ci ñi nga xam ne dañ lay sagoo di la téetaroo ñoom ñi saa bu ñu defee seenub liggéey ba noppi dañuy wëlbatiku di la ñaanal ñaan gi itam ñu jublu ci suñ borom gën laa dëgëral ci li nga xam ne yaa ngi koy liggéeyal Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim rawatina ci daara yi ni ngi leen taxawoo ak ni ngi leen jàppalee mu bu ñu doon wax avocat dafay mel ni bokk nga ci avocat yi Sëriñ Tuubaa ci daara yi maanaam képp ku yor rek daara yi alxuraan loolee nag tax na ñoom itam ñu def aw sas ngir di la bàyyi xel ba tax na ñu ñëw Tuubaa mukkute ak suñu ci yow wala ñu ngi lay bàyyi xel te ñu ngi lay ñaanal bëgg itam nga xam ne itam ñoom bokk nañ sag njaboot ci liggéeyam sëriñ Tuubaa bi nga mën leen a ñaanal suñu borom àggale seen i yéene mokkale itam bari na lool tubaarkàlla jigéen ñi tam ñu jàmbaar leen ci njàngale mi góor ñi itam waxi noppe yéegi ñi dañuy boole daanaka ñoo daanaka sax xam na góor ñi dàqu ñu leen jàngale euh, daanaka ba noppi teg ci sax euh, dañ noonu la ñuy bind xasida dañuy bind xasida di ko mool euh, mu nekk lu yéeme wax dëgg yàlla xam naa daal nga ñaanal leen daal makki te nii ñu mel rek nañ mel ndax saa boo demee ci barab ba Dakaaru bu newoon tey dem ci daara seeti ko moom doo leen bett ñoom naanaam seet gaag se gaag sàmmante gaag bëgguk sëriñ bi lépp ña ma nga ci daara ja loolee nag ñu la koy yeggee eh, sàkku nga ñaanal sëñ Modou Badiane mi itam borom gën koo dolli wér ak kattan ndax bari na ñoo xam ne tungoom na leen ci waajur yi nga xam ne séentuwut la la nga xam ne tax ñoom ñoom lay jóge seen i poste ci moom loola sax tungoom na leen ci bu baax a baax ci xale yi wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax nag tey jéglu maa xamut kàddu yi <laughs> Eh, sëñ Modou Bara eh, eh, tubaarkàlla tubaarkàlla tubaarkàlla sëñ daara itam ñëpp ñu ngi sàkku ñaan ñi nga xam ne itam ñoo fa nekk ndax téeméeri xale ak ñeen fukk ña ngi ca daara ja waaye bokkut ak ñi nga xam ne ñoo fay ñëw di jàng di yendu di delluwaat loolu itam yaatu na lool ña fa nekk itam seen i waajur nag bégg nañ lool ci taxawaay bi wax dëgg yàlla kon nag ñu ngi sàkku ñaan daara ji gën a yaatu tam am yëf yi boppam ndax kuy luyee daara moom saa su ne la nga cey daj weer wu ne nga yéene nangam boo sañoon boo defal la tawfeex nga am say bopp nga xam ne waaw moo tax Mbacke daal ñu ngi sant te di la gërëm te di la ñaanal ak jàmm yàgg fi loolu te ànd ko wér sëriñ bi ne mi ngi leen di delloo nuyoo bu baax a baax wala ñu waaw tey bëgg ci seen ñëw gi itam ndax lii képp koo xam ne dangay ngay dund lislaam lii dana doon sa mbëgg képp koo xam ne da ngay dunde sëriñ bi ak lam bëggoon ak lam lam lam fi nekkee woon boo gisee lii saxet daana dal sa njort dana gën a rafet ndax da nga xam ne lii lépp liggéeyub sëriñ bi la kon nag maa ngi sant bu baax bi ngeen ma ci boole xam naa ne gone yu toll nii jàngaluñ leen tubaab jàngaluñ leen lenn lu alxuraan buñ ca noppee dem ci xasida yi Sëriñ Tuubaa loolu avenir bu rafet la bu dal xel la ci yoonu murit tax na ñu ma ne muñ yeneen yi ci des yëpp te it mën na rafet jort bu baax ci avenir gone kon nag na ngeen ci lu bu baax te xam ne lii ngeen di def moo gën lépp moo ëpp muj lépp leneen lu mën a doon doonte xoy-xoy na du amul mujj lii rek mu amul mujj mooy jàng loo xam ne boo duggee ci bàmmeel dana la fa amal njariñ bu bis pencee dana la fa amal njariñ boo tasee sëñ Tuubaa dana bëgg ci yow moom jàng rek a mën a jàng te mooy alquranul karim kon nag nañ ci góorgóorlu mënante ci fexe ba gën a gën a ku nekk gën a woo gën a mokkal morom ma dàq bind morom ma te it yem ci nag bañ a yem nag ci jàng mi rek dafa siyéene ku ku jóg rek di ko jàngale di ko jàngal keneen kooku di ko jàngal keneen bu yàggee rek li fi indi woon sëñ bi day yaatu di gën a di gën a di gën a tasaaroo kon nag ñu ngi ciy sant bu baax te di fa jot bu leen yàkkamti na ngeen góorgóorlu rek lu lu lu baax lu ne deen ko séntu nagam yéen a ngi ci alxuraan bu leen bu leen bu leen tayel bu leen toqi bu leen yàkkamti na ngeen góorgóorlu ci alxuraan ji rek te xam ne eh, ay soxna jaar nag nii rek la ñu war a ay soxna jaar nii rek la ñu war a mel mhm. mhm. Mhm. ndax loolu moo ko liggéeyoon ku am taw feexi bokk ci rek nii ngay mel kon nag da nga am ngeen taw feexi eh, ñi ci ëpp foofu lañ jógee soxna awa jàngal leen ak ña fay jàngale mm, bañ bañ bañ jàngal day mel ne Porokhane ngeen jànge rek loolu day dellu ci day mel ne soxna jaaraa leen yaral boppam ci loxoom rek waaw na ngeen ci rafet njort bu baax a baax a baax te góorgóorlu bu baax te bañ xool fenn bañ ñee ñan te xam ne lii ngeen ne mooy li Sëñ Tuubaa bëgg mooy li yàlla bëgg kon nag na ngeen ci ngëb bu baax a baax te xam ne alxuraan yi mu tëdd dara dara dara mu ngoog jëf maa ngi wëlërante ak yéen bu baax nag te xam ne ci daara ji laa bokk lu ma ci mën it danaa jàpp ci wet yëpp jàpp naa it bis ñëw seet si leen naa la ko wax incha allah danaa ñëw ba ca daara ci seet si leen ba xam ni ngeen toogee ndax lii neex na ma lool yal nañu desee ngërëmul sëñ bi jërë jëf وهكذا دنياي مع أخراي يعني ففيهما عن إسرف الرسل واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من الناس وجملة الإخوان من أخار في الطين أو في الدين ولا والأجال فليكن حسنا ودابا يا سمن تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصلى وسلم النصر على محمد وسيلتي لك ولي بصل الختام عندك وتطلب بالصلاة للصحابة عن آله وأبي رجالهم برك سين تو أحسن جنجف أي لك جنجف sëriñ Saaliw woon suñu mbër ku sopp sëriñ Saaliw Mbàkke def leen ñu màggal borom jannatul ma'waay kii moonu mu jël waay borom xaykaar borom juru la rookaay sëriñ Saaliw sëriñ Saaliw Mbàkke kii moonu mu jël waay doomi ma ci xarnu bi te man amoo waay Serigne Saliou cant gi ñëw na waay mooy borom jur Serigne Saliou Mbacké yow say doom dum yarwaane mu dum maare tube ngay xotti ter daal dal leen di sedde الدنيا